bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu dellu si waat ci waxtaan bi ci numéro 1575 baanillah di indi ay leeral nag yu mbokk yi sàkku ci euh, projet de loi bi ñu dugal assemblée <clears throat> lu tax ay coow topp ci ak ñi nga xam ne ñooy coow da ci am ñun ñi ay boroom xam-xam lañu am ñu ñi nit ñi ay nitu diine lañu ak ñeneen di gërëm yàlla bu baax nag ndax combat boo xam ni euh, ñi ci bokk ñi ngi soog a bokk ci fés ci komba bu mel nii moom mu am filnde loolu rek rek benn jéego la bu Sénégal defagul boo xam ni histoire daf ko tas jiil enregistré na ko ba noppi la des nag mooy ñun ñëpp nañ ko sumbe woon ca 2016 Euh, fësal ko ndax lu jiitu 2016 ci lañ ñu yar yar leen ci muy lan muy sàmm jikko yi ba du yàqu am ay góor ak i jigéen ñu wane ay firnde am ci résultat kon ñu sant suñu borom bu baax euh, borom xam-xam bi nga xam ne danga dégg muy wax ni benn dafa tàmbalee. doye dil ñi nga xam ni ñoo jël combat bi loi bi yóbbu ko assemblée mu di leen tuutal ak di leen sosal di wax ni ñoom li ñu wax ni kilifa diine yi see nañu waxuñu dëgg kilifa diine yi euh, yëmuñu ci seen mbokk yëmuñu ci seen yéen ñëpp dégg ngeen ko loolu nag lan lay tegtale mooy Euh, xamal nañu ni bu ñu dugalee ñu dugalee loi bi ensemble yuux dina jib fuñ ko ko wul ci ben gi muy lan dina am ñu jog taxaw jëfur di di di di di di feñal seenu nakar. ci lan ndax li ñu yëkëti nga xamni bañ koy wax dañu jappal ni nañ ko waxewon ca Euh, place de la nation rek fa lay yem wala ñu koy wax rek ci yenn plateau yi fa lay yem waaye nag du àgg nag ci majlis ba nga xam ne moo gën a kawe ci réew mi ndaw yi réew mi nekk fa di dogal ak ak natt te jàppoon nañu ni buy amee xaj la ñu ñuy wooye ay sëriñ daara rek ak imaam nga xam ni ñoom dañ leen a nawloowul na wax dëgg yàlla dañ leen a nawloowul nag ci cër ñu am ci réew mi kuñ nawloowul mooy ki jàngul tubaab ki jàngul tubaab la ñu nawloowul ñu ko nawloogul mooy li tubaab yi def système bii di dox Sénégal loolu nag ba fi tubaab yi jógee nag war naa war naa jeex naa jeex waaye nag ba léegi bokk na ci laago gi gën a yeexal doxinu Sénégal ci wàll yépp laa wax luy baaxal Sénégal walla kul alin kon bu yuux jógee foo xam ni fooguñu ko ndax mooy bette waaye am na ñu wax ñoo xam ni bettuñu kenn kenn ndax nit moom euh, lam nekk ba sax ca sittim ba ak ci benn âge bi gaw mu xëy-xëy bàyyi ko waaw ndax ku fekk loo xam ni mu ngi ci téere yi jàng nga ko ba ngay jàng kenn waxatu ca amul lu ca lënt lépp leer amul ñaari xalaatin benn xalaat la aaya rot ca addis rot yàlla araamal ko nga ñëw daganal ko boo ñëwee daal di tàmbali di tuumaal ñii yore luwa bi loolu ñoom du leen naqari du leen naqari kat ndax loolu du leen bett te loolu du benn du ñaar boroom xam-xam nag mooy kan kon moo boroom xam-xam mooy euh, من لم يخش رب العالمين فليس بعالم ولو افنى الفنون بود ما كي مساليك الجنان دين كنت فك شيخ محمد بامبو ديك فوخ مني كو رغالول يالا داي دونتي جان نا با جيخال فنون ني فنون موي ليب لو نيت دي جان جيخال نغاكو ياو نيول جان كو واي دان كو جان با جيخال كو ولو افنى الفنون خلو لولو nee na fale nee na koko lu boroom xam-xam ndax lan lam yaxsa rabbal alamin mu dëppoog ilma yaxsa allah min ibadihi al ulama fi yàlla waxe ni ah sama jaam yi day ñi ci ragal yàlla moo maanaam ñi ci am xam-xam mooy ñi ragal yàlla kon boroom xam-xam day ragal yàlla kon ku ragalul yàlla boroomu mu la boroomu jàng la mbokk yi ah, nañ nañ tuddee ki ñi wax ni kilifa diine lañu wala ay imaam lañu wala ay ustaas lañu wala ay sëriñ daara lañu ak fu ñu mën na bokk rek eh, am na ci ñoo xam ne duñu du ñu bette du ñu bette ci seen wax jooju kat eh, eh, du naqari ñu bari lu lu neex ñu bari nag ndax lu lu ko fi jar lañ gisul lu fi jar genn xat-xat ci ba yenn avocat yi nga xam ne wuuteeg avocat yi ñu xëy bañ déggee le 23 mai jàll ak la ko jiitu lañu woote ñoom ñi fu ngeen soxlaa awokaa ñoo ngi taxaw te ñooy avocat yi gën a gën a mën a défendre soxla nit ñi ñu xam leen ci plateau yi xam leen ci ci tribunaux yi dala yàlla yàggal fi awokaa yooyu ñu ngi noonu noonu ñu ko defee ñeneen ñoo xam ne ay juge lañu noonu lañ defee bokk ci combat bi bu ngeen leen déggul ñu ngi toog lépp loo xam ni ñoo ko war a jóg def ñoom duñ caxaar kenn waaw kon li feeñ lu tuuti la ñi ngeen di gis nii ci plateau yi ak ci manifestation ñoo gën a tuuti ci ñiy doxal mbooloo mi doxal mbooloo kon avocat bu jógit ngir yaa ngay wax ngir bëgg am benn camp bu la jël la xam nga ne ensemble ji koy jombul moom boo fa faree jombul yow euh, xaalis du fa jóge waaye jombul boo faree faneen buñ demee ba àgg ci loo xam ne jar na avocat yow mën naa am wala mën ngaa wax sax ndax ñu euh, far la nga nekk benn DG ci benn bureau ak yu mel noonu rawatina nag journaliste yoo xam ne euh, ñu ngi am waaye benn émission boo xam ne ndaw si ko doon animé di mel ni kuy doyee dal waa ànd saamu jikko yi mais kooku du bett kenn ndaw soos du bett kenn mel ni ku leen di doyee di ñàkkal solo mbir mi di xeex-xeex di ree di laaj-laaj yoo xam ne te eh, koo xam ne yaa ngi profité bëgg ku la seetaan ak ku la diglu bu événement yu mel nii amee ka ca wax te mu doon ku siiw donte la mu wax lu bon la lu baaxul la lu lislaam bañ la nga xam ko loola ca ngay profitoo yow ngir yow sa émission nga fexe ba mu bari ay vie mbokk nag bu ak journaliste àggee foofu journaliste yay def loola laa wax nag ay yenn journaliste dong la am na ñu bokk ci combat bi di ay journaliste waaw di ko xeex kon journaliste bay def loola nag bokk kooka te nib julit la moom it day bokk ca ñële rek kañ ni boroom xam-xam te ragul yàlla daal kooku daal daa amu jàng rek waaw waaye daal ala kulli xaalin kon ak ki nga xam ni day def politique pour moom man a politique mooy euh, lépp loo xam ni camp yi ma féete moo leen di jëmale ci kanam moo xam araam na moo xam dañ ko sib moo xam day yàq réew mi day soppi nit ñu nekk ay góor génn ay lesbienne sama yoon waaye danaa ko def waaw bu leen lu ñu loo xëy da koy gàntu ngir mu arrangé fi mu féete mu gàntu ko yooyu politiciens nag mbokk yi ñoom it ba pare ni ay jullit lañu waxtu wañ koy waxte lu ñuy jullit wala yàlla dimbali leen bala ñoo faatu ñu tuub ñooñ ñëpp tuub xam ni li ñu def lu bon la saa borom digg na ci sawara tëkku nañu koy def xam ni ñi porté combat bi ñu ngi ci man ra amin ku munkaran fal yughayyiruhu ca la ñu ne ñu ngi ci uh, aay bi wax ni fokk rek am nañu yàlla sàkk ñoo xam ni wala bokk uh, antum xayru ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar ak ya ca topp ak yeneen aay yu bari yéen xeetu sayyidina Muhammad alayhi salaam yéenay euh, xeet bi nga xam ni yéene kaw yeneen xeet yéen de da ngeen di digle lu baax rawatina la nga di ko digle ba noppi nag nekk ci lu baax la di tere lu bon ba noppi nag bàyyi lu bon la léegi la kon addis ñëw daal di catégoriser def ko ay catégorie ci euh, ñii ñoom mën nañ koo dindi ak seen doole mooy ñi ko war a dindi ak loxo ñii nañu dindi lu bon ci wax ñii nañu ko bañ ci seen xol dinañ ci ñëw ci karam tuuti incha allah kon suñu demee nag suñu demee nag ak ñi nga xam ni la def ca suuf dañ koy nëbb waaye ña ngay yàq ngir loi bi bañ a jàll ña ngay yàq ngir Sénégal lu jóge ci occidentaux yi suñ ay suñuy kilifa lañu réew yooyu ñoo avancé ci àdduna nit euh, warunoo des ndax jamono àgg na foo xam ni yenn yi warunoo tënkati yenn xalaat yi warunoo tënk xalaat yi lislaam déedéet warunoo tënk non seulement man jullit laa man bu julli dinaa woor surtout jeex na leneen li nag moom foog ma àdduna sama àdduna a ah, ëllëg yàlla baax na nangam nangam nangam cey boobu julit cey boobu jullit eh, groupement féministe yi jóg féministe jóg ñoom it am ci ñoom ñoo xam ni eh, alal joo yaakaar joo xam ni mën naa jóge ci ci ci ci ci ci ci ci organisme yooyu nga xam ni ñoom ñoo composé LGBT ak yeneen yu jàmmaarloog lislaam yor seeni milliards lool atan ko joxe tax nga jóg yowit di déngat ci ah, mais vraiment képp koo xam ni yaa ngi nekk ci yenn groupe yi ñi da ngay défendre ak jigéen ñi yu mel nii dañ la cee war a dégg waaye yow doo leen ci dégg doo ci dégg te bu ñu nee benn sëriñ daara Euh, doon na dóor xale ba xale ba euh, yaram wa dagg ñu jóg ñu jóg ñoom rek ñoo porté woon combat pour ñu criminaliser lii ñu wax viol ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom jigéen ñoom ñenn ci jigéen mu yomb ci ñoom lool lool ñu dem mu jàll waaw ñaar yooyu lan moo gën a bon góor gu ñu àggale ci jigéen ci dudul sagos jigéen ja ak lii di wàllu ngóor jigéen ñaari góor yuy sëy ñaari jigéen yuy sëy nga xam ne ah, àggale foo xam léegi dañuy gis kër gu am famille nga dem fekk fa ñaari góor ñu am seeni doom ñu tudde Fatou ak Omar ak Abdoulaye waaw ay ay ay ay ay ay Paul ci ñaari góor la kii mooy papa kii mooy mama walla wala ñaari jigéen la fa nekk di ay lesbienne adapté seeni doom wala ñu jël seen xaalis dem jënd liy tax am doom dem ñu ëmbal leen ko mbokk yi ñu jëmenu foofu ñu xam ko ñu xam ko ñoom ñu àgg foofa accepte loolu au lieu ñu bàyyi noonu ñu dund ah lii dëppoo ak sunu ngëm-ngëm ak sunuy aada sunuy jikko ñu ni du fi amee dañuy yem ak yéen sawaan fokk am ay dulit ay doomu Afrique ay doomu Asie fun am na ñu baax am nañu bon ñu taxaw ni du fi amee ñu taxaw ni du fi amee ñoom dañ cay nekk jeexal ci seen dund bañ faat leen ca wala mbir ma bañ a jàll waaye bala moo jàll ñoom day fekk ñoom duñ ko tal rek waaw duñ ko tal rek ñu jël leen denc leen wala ñu denc leen ci suuf wala denc leen ci biir kaso yi rek kon ah mu suñu xalifa yi dañoo war a wax waa mbokk xalifa yi dañoo jëfandikoo hadis bi ma jàngoon léegi hadis bi dafa wax ni man raa minkum yéen jullit yi ku gis ci yéen munkar maanaam lu bon lu bon nag xam nga ci li nu weesoo bi yàlla alak euh, xeet yoo xam ne dañoo def mooy yàlla gu rëy ñi ci gën metti la mbugal mooy góor jigéen yi muy muy waa lóot ña ndax ñoo xam ni kat yàlla dafa yàlla dafa taw ñoom ay xeer yu sawara yàlla dafa comme dañoo yàq suuf sañ nekkoon yàlla changé suuf sax dama ko changé dafa yëkkati malaaka bi dafa yëkkati suuf jibril ba ca ajak-jak ca kaw a kaw a mu dëpp leen dëpp leen su caa nag sawara wu metti woowu su caa tawaat nag xeer yu metti yooyu nga xam ni foofa loo fa jiitu sax ba léegi nii ma ngi gën di xóot rek moom mu mbugal nag bu ñu gisee nag ñu dekkalaat loola nag au nag ñoom ñu ko am mu normal fa nga xam ni tàmm nañ ko waaye ñu ne nag lu fayam na ñëw fii nga di ko seetaan addis bi nag daa di wax nag ni euh, ku gis ci yéen munkar na ko dindi ci loxoom xalifa yi daal di comprendre loolu daal di jël nag xalima allahu akbar bi de da ci loxoom kon ñiy wax ni xalifa yi lañu lañu léegi nañu wax nañu wax xanaa dañoo fàttali lii dañoo dañoo wax ni xalifa yi doongi leen di gërëm bu baax a baax ci li ñu jëfandikoo waaye jamono comme léegi image image nit ñi euh, moo gën a gaaw tas ci ñenn ñi boo ko giseet boo mënee lii rek boo mënul lire yëpp image bi moom dafa lay daal di leeralal kii li muy wax mooy lan moo gën a yomb a tasaare moo gën a gaaw a siwal mbir waaw kay ay kay gërëm xalifa yi ci dégg guñ dégg hadis bi ci ñoom jëfandikoo loxo ci lañ toll ñooy première étape bi ñoom def nañ ko def nañ ko maa ngi dégg démb benn jigéen bu weex lu am solo mu xalifa yi daanaka sax mun nañoo bañ a ñoom loolu ginnaaw bind nañu war denc ñëw suba incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah waxtu wi jot na